association bu mooy dégg fan yi association mbëri booy booy mbëri yooyu noonu. am na ñetti association. dégg li ma la wax soxla. ñoom Gris ko jiite. waaw beneen bi ñoom Kona ñoo ko jiite. ak ñoom mobile. waaw ak ñoom beneen bi ñoom Sibor ñoo ko jiite. Mhm. ñoom Alliance Balde ak Jamaïcain ñoom ñoo jiite. bu ñoom Alliance Balde boobu ñoom Alliance Biram boobu. ak bu ñoom Onde le Fou bi. association yooyu yëpp bu ñu rangoon nii man ak ñoom ñëpp mbër yëpp rang nii nii nii nii maa ngi ñoom guddi ma fanaan leen daan ba bërset ñoom ñëpp léegi la moo tax nga taamu leen ci ne. non dafa am fu ma ka teg fu ma teg parce que en fait lamb du ay association ak ay whatsapp groupe whatsapp man groupe whatsapp bu ñu ma dugal ma quitté parce que soxlawu ma xaritu mbër bëgguma am xaritu mbër. comprends baale ma la wax li ñu mooy lan ay jullit lañ buñ dajee nañ nuyoo bu weesoo loolu seexuma ak mbër ma mbër ak xarit lamb la ñu wax. boo ma jeekoo loo mën danga ma koy def pour daan ma ko bu ma la jeekoo du ma la mooy ñoom ñëpp. léegi nga bëgg ne man. bu ko ci moom na jël avance bi. man yow boo rangee yow daaw da sandis fëggal la ma ne sandis leen am sa mburoog bër sa yaa sa lapin déggoo li ma bër dafa gaaw loolu du da ngaa dof wuy ma fii bu dee dëgg la daal dama leen di boole déglu ma rek ma a hmm. nga kii de mawru xam tax ma wax loolu man dama gëm sama bopp am fu ko teg léegi ñaari association laa la wax man maa ko wax man personnel Modou Feuguela man man maa wax yaa ngi man maa ko wax ñaari association bu ñu rangee ma fanaan leen daan minuit ba bërset 6 heures du matin bu ñu bëggee bu weddee na commencé ci moom moom bu weddee na commencé ci moom barki ma daan ko comme ay moroom xaw ma ko sax bu ma laajee sax dama ne benn raxu foofu xamoo ma nga ne yaa mën. xaw ma la. nga ne yaa mën. mais su la jàppee daan la. du ma sa morom sax kii dafa neex. du ma sa morom. dégg ma yor nga neex. yow du ma sa morom. waaw léegi jëlal avance bi du ma sa morom bi. du jël moom mii ñoo ngi koy bëre yow ma bëgg la jël may ma sax. man musuma bëre ñu mbër gis ko. stade laay duggu tag toog a gis mbër bi soxlawu ma la xam soxlawu ma xam sa tur soxlawu ma xam sa dara nañ jàkkaarloo làmb ja rek nga xool. mais kii bi ko gisee. fi bébé Bismi mu ngi fi. dof bi faj nit ñi. déggoo li ma la ñoom ñëpp amul ku ma ci taxaw na la ngir yàlla nañ bëre parce que ñoo ma jiitu ci làmb mais ku ci nekk ba ci agogo fekk naa ko stade na ko grand ngir ma chance ma daan man man même boo may rey dama lay wax sama soxla même boo may rey dama lay wax sama soxla agogo ko mën a fekk arène nationale wallahi na ko gan grand mu ne ma ma ko may ma chance ma daan la ci kanam idaali ñi nga aw lu may ragal man ku ma bëgg a bëréew dama lay taxaw wax la sama soxla garaawul ku ma bëgg a bëral ma lay wax sama soxla nga dégg xamul kenn ñoom ñëpp yow budul budul budul boobu nangu Sita nag di nga jël avance du ma laaj kenn man ma ay <laughs> boobu yëpp eh, mu Sita Sita laa fay bëreel ay ay maama Lamine Abu Ndiasse consort googu dem sama yoon raatat man xaw ma gëw ma ay tarki ndaak ay turki ndaak ay turbi ndaak ay ay bañ a andi sa bopp xam la laa gëm ah? xam la laa gëm fakatan te man fakatan laa mooy dëgg-dëgg jàmbaar góoma yooyu ñuy gëm ni di yoole yoole man affaire yii nii dama ko waaye da ngeen a baax rek egguma fi wala egguma fi yii parce que si yow Tijaan waaw léegi dégg la ma la bu arbitre ne woon prix la moo ci bëree kenn da nga ne pied bi du fekk ma jiitu ci la ma la dama ne la arrière même pas xoolal R4 yi xeerkat yi yëpp a toj man ragaluma dóor xeekat dëgg dëgg xeekat yii yëpp ay xeer lañ ma dóor yii yëpp ay xeer lañ ma tiim di ma dóor man ragaluma xeex lan mooy xeex sa garde baaxul moo tax muy dugg lan mooy xeex sa garde baaxul sa waay day xeex sa garde baaxul gis na suma allah dama ne bu toj ak bu kuñu xëy na ay temps waa léegi dama la laaj ngir yàlla war a suuri mais xeerkat la bandi dëgg day nice am doole mën li muy def du tiit mukk bandi ñu ngi leen di dégg bandi du wax bandi laa de du ma la bandi du wax bandi la. da nga ne bandi dëgg. bul bul deel li nga wax da ne bandi dëgg nga wax. voilà. déedéet ba non li ma bëgg laa wax de man bandi bandi wu ma de. li nga am ni dafa sedd. barki Serigne Touba li nga am dafa sedd balaa nga xam li nga am ni dafa sedd rek nga jël avance bi.